lay fay ci nuyoo bi euh, di nuyu sénégalais yi di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi euh, xëy na yàlla def na ne boobu ba tey ñi ngi dégg lu nekk ci internet bi ñi ngi gis lu nekk ci internet bi ñi ngi wax lu nekk ci internet bi mais comme ni Doro Gaye di doxee rek ñun noonu la ñuy doxee moo tax tey ñu décidé ne dañ wax ak sénégalais yi parce que sénégalais yi ñoo jar a waxal ndax Doro Gaye li mu nekk Sénégal je pense que ci sénégalais yi la ko def ni mu taxawee Sénégal sénégalais yi gisal nañ ko seen bopp li am nag ñëpp xam nañ ko ñaari nit ñaari civil yu jote la ñu jaay kenn ki kenn ki soxlaatul wala wóolootul lañ ko jaay mu bëgg ñu delloo ko xaalisam ki nga xamante ne mooy Doro Gaye d'accord pour delloo ko loolu nga xamante ne moom la ko joxoon waaye gis nañ li nga xamante ne mooy ndogal bi ci justice jël moom nag nitu dëgg la nitu jàmm la nitu salaam la kon ku fonk justice su réewam la ba tax na bépp décision bu justice jël ñun amuñ ci benn commentaire bu ñuy def xanaa kay dañuy utilise waat yeneen moyen ak yeneen procédure yi nga xamante ne justice may nañu ko ngir que ñu mën a am ndam ba moom mu am liberteem dellu ci liggéeyam dellu ci dimbal bi muy dimbali askan bi dellu ci taxawaay bi nga xamante ne mi ngi koy taxaw sénégalais yi. ñu bëri jàpp ne euh, jamono ji nekkatul civil ak civil mais état du Sénégal daf cee dugal loxo pour genre fayu est-ce que loolu noonu xalaat boobu ah, man maa ngi tribunal Euh, fi ma yem mooy décision bi tribunal jël ñun ñëpp ay sénégalais lañ bépp décision bu suñu yoon jël ñun ñoo ko war a fonk ñoo ko war a màggal ndax su yoon amul woon ci réew mi je pense que kenn du mën a dund ci réew mi ba tax na amuñu benn commentaire buñ ciy def li nga xamante ne justice bi décidé nañ ko moom Doro Gaye ci boppam d'accord na ko malgré que ki mu joteel juboo woon nañ ba mu war ko delloo li mu li mu ko yoreel mais justice moo ko décidé sénégalais nak so nekké un bon citoyen su justice décidé da ngay accepter li justice décidé waaye nga utiliser wat yenen moyens ak yenen procédures yi la justice may pour que nga mën am dab liñu gëm moy lepp lo xamante ne Doro Gaye mi ngi koy def fi ci réew mi lepp lo xamante mi ngi koy taxaw fi ci réew mi je pense que dañuy jël témoin sénégalais yi gis nañ ko ci këru diiné yi gis nañ ko ci këru aada yi gis nañ ko ci daaray alxuraan yi gis nañ ko ci université yi gis nañ ko muy dimbali néew gu doole yi gis nañ ko muy tambali di jàppale képp ko xamante da nga feebar te sa loxo jotul sa ginnaaw gis nañ ko ni mu taxawé ci xelkom encore ñuy remercier di di di di jërëjëf di sante këru diiné yi nga xamante nek nañ Sénégal mo xam Touba mo xam Kaolack mo xam Tiwawal amul kenn ci ñoom ku tankamlu li nga xamante moy nattu bi dal ci kaw dooro gay waaye nak comme niñ koy waxé jam moy tek jam nattu te yalla su la tegee nattu dang koy nangu li ñu gëm moy li nga xamante ne moom la Doro Gaye taxawee ci ci réew mi dañuy wax alhamdulilah kenn jàpp ko ci sàcc alalu réew mi kenn jàpp ko ci dorog kenn jàpp ko ci def naka noonu jënd jaay yàgg naa am coow yàgg nañ ko lijjanti yàgg nañ ko régler ci loolu la. ci loolu la Euh, est ce que communiqué bi ni yéexul da ngeen jël da ngeen dem ba ànd ak Doro Gaye ci rythme manam mom tek ci souf rek Doro Gaye boo xoolee problème bi la nit di soga baye xel image yu bëri photom yu bëri ci lañ koy soga xam est ce que lolu yeen waroon na len est ce que waroon len won télo ci souf je pense que je pense que dafa am lo xamantene euh so nekkee un responsable do tontu waxu mbedd do tontu ku tok yor téléphone am di wax lu ko neex do tontu ci ku lay waxal lo xamantene yow leer na la ne ak yalla suñu borom liñ lay waxal amul waye tay li tax ñu indi léral c'est parce que sénégalais yi lañuy lancer message parce que sénégalais yi ci seen jëmmi bop ño bëgg Doro gay sénégalais yi ci seen jëmmi bop ño and ak Doro gay ndax Doro gay dafa and ak ñom ba taxna ñu leen rassurer waat encore une fois mi ngi ci jàmm mi ngi ci salam ku gëm yalla la waye aussi ku gëm justice su réewam la ba taxna na yoon bu ñu may

def li nga xamante ne yoon may na leen ko pour que ñu mën a relancer waat combat bi mën a am liberté pour que dooro Gaye génn dellu ci njabootam dellu ci liggéeyam dellu ci lu baax li nga xamante ne Sénégal moom lañ ko xamee dellu ci taxawu aveugle yi dellu ci taxawu néegu doole yi dellu ci taxawu daara yi dellu ci taxawu këru diine yi parce que loolu lañ ko xamee xamee wuñ ko tontonte xamee wuñ ko xuloo xamee wuñ ko wax lu ñaaw xamee wuñ ko defante té loolu du ko mus am ndax yalla moko saké non je pense que kon ñun ñëpp suñu fierté la xana kay di dalalaat xelu sénégalais yi di dalalaat xelu mbokk yi xelu am di jamm yi né mi ngi ci jamm te incha allahu rabi dinañ am ndam ci li nga xamante ne ci lañ nekk. question balaa may bàyyi sama gars yi euh, yeneen plainte yu ñu ciy dégg est-ce que am na parce que comme li ñu wax rek da ngeen yéex a communiqué te boobaak léegi ñoo ngi dégg ay mbir yu sew te yow bokk nga ci ñu ko gën a jege est mën nga ñu leeral yeneen plainte yu ñuy dégg ak yeneen coow ci moom. c'est mu toll nii suñu amee lu ñuy leeral mooy li ko opposé ak monsieur Sow li ko opposé ak monsieur Sow moom li mu ci waroon def def na ko xam nga muy lan ñëpp doon nañ wax naan Doro Gaye dafa daw génn réew mi mo ñëwal bopam ci réew mi mo demal bopam ci police bi pour lan pour régler problème bi nga xamanté na am ko ci digënté mom ak monsieur saw je pense que ku mel noonu ku mel noonu ku mel mënon na def ni ni ni ñëpp waxoon moy ka dawna dem na teug Europe am fa lim fa wara am tok na fa mais dédét ku bëgg Sénégal la ku gëm Sénégal la ko xamanté ne dafa gëm né sénégalais bu ci nekk war nga mëna taxaw jappalé sax ku gëm Sénégal la ko xamanté ne dafa gëm né sénégalais bu ci nekk war ngaa mën a taxaw jàppale sa askan jàppale sa réew ba mu jëm kanam moo tax mu ñëw dem ci yoon waxtaan ak yoon waxtaan ak ki mu joteel ba war koo mën a jagleel li nga xamante ne mooy delloo ko li mu soxla loolu nag je pense que ñëpp xam nañ ko yoon nag def na li nga xamante ne moom moo ko doy dañuy nangu li ñu yoon di di def waaye aussi du tax ñu bàyyi am na yeneen yoon yu ñu may am na yeneen procédure yu ñu may dinañ ci def loolu mais ñu xam ne Doro musul daw génn réew mi deful lu muy dawee di génn réew mi tooñul kenn jëlul alalu kenn jëlul alalu askan bi nga xamante ne moom lañ moom la moom la askan bi moom o contraire nit la kuy liggéey di jël ci kattanam di jël ci dooleem di ko jàppale askan bi te je pense que loolu sénégalais yëpp mën nañ ko teewee sénégalais yëpp mën nañ ko seede li si des nag dañ koy bàyyi ci loxo yàlla suñu borom parce que ay jullit lañ ay murit lañ li ñu gëm mooy yàlla su tegee ndogal dañ koy nangu yoon su dogalee danga koy nangu waaye dangay def li nga xamante ne mooy yoon yi la procédure procédure yi la yoon may nga def ko ànd ceeg say avocat ba yàlla may la ci ndam te ci loolu lañ def tontonte wuñu werante te teesante wuñu ku ñu tooñ baal nañ la ku ñu waxal lu ñu deful baal nañ la ku ñu giñ loo xamante ne defuñu ko baal nañ la Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ñoo war a bokk ndey ñoo war a bokk baay loolu la door gëm loolu la ñun waa plateforme Xippil Xool gëm ñëpp ci social lañ ñu xamé ñëpp ci médiation lañ ñu xamé ñëpp ci jamm lañ ñu xamé yoon bobu nak duñ ko mus a parce que loolu loolooy njëriñu Sénégal. bo ñu mënee revenir touti parce que bari na ay lënk-lënk yi nga xamné amna ci ci ci ci ciow Doro gay gars yi ñoo ñi ñoo ngi wax ne que Doro Gueye dañoo nekk di réviser patrimoine yi bi nga xamné mom détenir nako ko leneen li tamit mooy nee ci biir sax mbir bi nangu nañu këram ndax loolu mun nga ñu ci indil ay leeral ci mbir. je pense que mooy li ma wax sànq

ndax sénégalais yi ku nekk doon wax dafa daw mu ñëw dem wuyu ji yoon waxtaan ak ki mu war a waxtaanal ki mu joteel ba war koo delloo waaye yoon gis nañ li mu dogal dañu ciy teg suñu loxo gën a taxawaat gën a defaruwaat fas yéene jàkkaarloog li nga xamante ne mooy yoon xool li ñu yoon may ñu mën koo am pour que mu mën a am liberté dellu ci liggéeyam je vous remercie merci beaucoup